moom boo ko xoolee nii mi ngi nee ne mi ngi war a doon euh, fii miiru clôture bi la clôture devanture bi waaw benn haute tension moo ko traversé nii waaw benn haute tension moo ko traversé fii mooy portail bi entrée bi oto bi ñu yor nii moom dugg nii gis nga parcelle bi moo tàmbalee nii jëm na la sa guy ya gis nga devanture bi lépp dañ koo miiré taxal ma dugg léegi wala la voilà léegi boo ko xoolee mu ngi nii def nañ fi benn construction bu mel ni poulailler à droite boo dugg si à ta droite def nañ si benn construction benn bâtiment ma ne bâtiment bi amul toiture léegi boo ko xoolee ne gis nga ko mi ngi nii voilà boo xoolee lii leer bi la nii ngi war a doon na fi nekk nii 120 parcelles mais 120 parcelles yi fi nekk nii da si bëgg wanteer dix parcelles ndax dafa am yitte jàng dafa am na nga xamante moom la yittewoo daar daar nekk nii. waaw euh, asalaamaaleykum ça va na ngeen def mbaa yaa ngi si jaamu waaw man de dama bëggoon a commentaire tuuti ci euh, série bi euh, série bi dama cee gis loo xamante ne man gis naa ne nekkul lu lu lu lu rafet quoi ci sama gis-gis man ndax ñun Sénégal am nañu suñuy réalité yoo xamante ne. ñun xamuñu xale du dugg ci euh, ci sëy yu mag toujours xamuñu amuñu habitude boobu ñun toujours dañuy jël xale ñu yemale ko place mais ni ma gisee série bi lépp nice mais xale bi daal moom ni ngeen ko ni ngeen ko intégré ci film bi man neexuma parce que dafa dugg ci ci ci vie bu papa ji ak yaay ji ba mu ëpp te loolu du yoon bon Sénégal xale yi bu ñu gisee loolu mën nañu euh, yaakaar ne noonu la daal ndax euh, yéen seen xalaat da ngeen wax film bi moom ni ngeen ko bindee lépp nice loolu moom man d'accord naa ci waaw mais nag bon foofu rek moom moom moom moom ma xaw a métti ci film bi moo heure bu film bi commencé su ma ko seetaanee xale bi ci génnee rek man damay am lu mën a xari parce que xale bi man pour man amu fa place quoi xale bi moom amu fa place franchement ok merci.